non non de surprise mais c'était une surprise pour ma femme hein. surprise sénégalais sénégalais sénégalais sénégalais mhm. il purement sénégalais il donne parce que pendant ce temps facile boobu yéen ñaar pour ngeen nekk donc ñun lu ñuy gis loolu la ñu mën a comprendre li nekk si kër yi suñu woon nekk si ñoom dañuy bëgg chaque jour di gis Pape Sidi comme ça donc su fekkee vidéo bi <laughs> li bi li ko waral comme ni mu ko waxee mhm. euh, bisu anniversaire u jabaram bis boobu la ko njëkk a defal surprise bis boobu la ko c'est une longue histoire foofu la voilà donc bis boobu la ko bis boobu la ko defal euh, <laughs> ma saxatoo. anniversaire calmez-vous. mën naa c'est relation ak soxnaam si anniversaire la la jógee. lii mhm. ñuy anniversaire. mais il faut que micro normal mais. voilà anniversaire les daal normal. normal mais normal parce que man xam que li may def. man maay diriger sama émission. d'accord mais depuis quand il est technicien de son. le <laughs> technicien de son là. <laughs> alors Baye Ndiaga mënoon mooy vidéo après ñu ñëwaat anniversaire yi ak sa relation sa euh, truc genre beaucoup de choses. très bien. isteyeceğe. Ve vazi vazi vazi vazi degaj. Vazi jaga degaj. vazi jaga. Leyla munoo dawal. waa léegi oto bu njëkk bi noo koy def. oto bu njëkk bi noo koy def njëkk. moom de lu yor xaalis xaalis bu mu yor de yëre lay jar.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 Ah, darling, don't cut card for ladies. <laughs> eh, jaga. Eh, bain jaga. Jaga mbok koy Wow. Waaw. Déjà le jaga. Fan la jóge. Euh, dafa bi sama galé, sey si. Hmm. Dafa fekk choc quoi parce que Baye Fall yépp sama galé la ñu Sama galé mooy rendez-vous Baye Fall yépp parce man. Ñu fi jébi. Ñu may a boo xawee xees am ay laay. il faut nga dimbali ma am nga gaaw. non dama gaaw booy man man machine laa. boo xawee xees am laay booy dañuy foog ne booy disco nga quoi. booy dañuy ñëw pour bëgg a fanaan sa gaale xam nga def affaire tubaab yooyu. Mm-hmm. amoon yooyu nekkuma si. Mm-hmm. ma dajale Baay Faal yi ci ko ñu di fanaan ak ñoom. Mm-hmm. léegi Baay Faal yooyu bi sama jabar sëy sëy fa leen fekk mais bu ñu yewoo dañ naan ma Ndiaga. mais toi tu t'appelles pas Pape Sidi. ma ne ko non non je qu'est-ce que ça veut dire njaga man ko non c'est que faal njaga yaaram hmm. léegi ñoom dañuy wax ci faal njaga yaaram dañ naan njagare d'accord mu ne ma ah ok léegi depuis lors ma femme m'appelle njaga moi je l'appelle njaga on s'appelle njaga mutuellement c'est comme si tu dis à une personne faal moom la ngaa ka blende saati ci way wi naan njaga njaga njaga laaj ma njaga nanga njaga waaw ok loolu dina ci ñëw euh, lii nga ko defal nii yombul comme ni ko tutu waxee

gars yi ñi ngi clash ga kii gars yi xale yi jigéen duñu sëykat ñi siiw ñi nekk journalisme et tout ñëpp di ci gis seen bopp ah kon boo gisee lu mel ni xam nañ ni la féete moo tax nga def lii ndax nee nañ koo xamul nam nam na koy def nam la defa tax mm-hmm. seen relation macha allah donc ah. anniversaire ko anniversaire anniversaire déwén dèjà ñi ngi xalaat ne la <laughs> nga war a <laughs> bien anniversaire déwén dama koy takkal bu jox ko ko <laughs> xaar leen semaine si biir anniversaire déwén Hemos con esta cariñada ya, no con siempre. on a fait 4 euh, ans de mariage. 4 ans de euh, mariage euh, combien beaucoup de nains de sortie hein. mm, beaucoup de nains de sortie beaucoup de de sortie. on a fait beaucoup de nains de sortie <laughs> mais à 4 ans de mariage on a une fille magnifique. Diara Bousso. love you baby. <laughs> Bah that t'aime. non mais ma femme c'est ma mm-hmm. copine C'est mon mari. Mm-hmm maak moom ñoo bokk lu ñuy liggéey mhm. mais en dehors de ça quand on a des problèmes des fois a un problème yow yaa waroon un toggoo lan là tax toggoo mhm. ma ne ko man démb maa togg après un mhm. problème yooyu bu ñu amee problème yooyu divergence dañuy on se pose on communique on gère ça on dialogue les leneen d'accord bu jàllee les leneen d'accord ñu jàll ci leneen <laughs> li nga wax nii neex na euh, bu ñuy sañoo sa jabar dañ fay desandi parce que bari na luñ ci war a mën a partager ak yow mais foofu nu wax ci actualité actualité yi am parce que 18 euh, h jot tu te fi mu finalement, question yu heureusement arrangé na ma parce que temps bi quoi. très bien dama une question yu. Euh, donc yenn question yu sax yi quoi. Euh, Pape Sidi actuellement gis un mouvement hip hop Galsen bi culture